وهو رهيب الأصمان من الأنفى أمن وسكور ساخدمة للمصطفى عبد الشكور عن المثال لي قال ما قاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء عالم عبد الله سلباي بلا منك يخفى للمصطفى ودعت ما قد صرفا لقينا إبليذا وانصرفا أدلمت باطلا بحق فسأخ ولإلهك تسقيد أخ ما نصر بمالك كليتي هاللوك أملي والنيتي ردت بالله وبرسوله من خلف الحق والنتصول برعلي لو مزرك ومن كل نفاق وصالة دمين برعلي من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام منبي هو الذي لم أرى خيره ولا أرى أبذ أذى والنورا محمد زلالي بسلام وسيلتي لو ولخاد الكلام فرأني تكريم تفرعني يدوم بأنني خل ويب وقديم لا كتابي وما أقدارا ولسوانا وجه خدارا أيتتنا على الإذا خلبوا ونسوانا ساقر عن قلبا تظليم باق خاد لي على الذي أورثني ثوابا على الذي طلب كوني الخديم لو سلامة سلبرية الخديم لمن لا كل يد العبادة عمدي ومن خالفني الأباد ملك الذي نسر مباي لي قال ما خاب عن المباي ناجاني العليم وقبير وجاد الواسع وكبير فرعني جميل منافع ألاني الملك وولاب سقم قليل ما قبلنا مدرتي من يقول من آب ملكني ملك والمالك والمالك الذي لا تملك أجن كبيرا وصوابا والجزاء والوعد في رمضان النجساء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما ترون فد خدمة خير هالا من آمدا هالا هاليد دماء كريم عمدا فرأت القلب والنفس طيبات وبمكاره لخير صبر يسر خير العالم من الخلم هليت ديما مزل قلبي للمصطفى وجدت مال خادا نفعا بلا مدرتي فانخادا هو سبيه وهو سجاو به ما سلمي والاوجاع محمد صلى الله عليه في الآل وصحب ومن ولاه ما بلاي وما أمراضي وبيردات خاد أخراد نبينا المختار خير الأنبياء هل تديم أبيبي ربيا خطر كليتي في ألنا وسر وولي خاد ولنا رابط قدماتي إلى الوسيلة من أرى تفضيلا رافع ذو القدمة إلى الميسنات ولسوانا ساق كل من فناد هو نبي ورسول والخليل هو أبيب ويكسر الخليل تظلم باخ لا يزال صمدا هل النبي ورسوله حكمنا أقاز على ماء الكريم سمد هل نبي وسيرتي محمد هلا نبي وسيرتي محمد أقاز على ماء الكريم سمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلا يبتدروا ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت فترة فوق صوم جئت بسلق سيد ساكنا لك بي وقبل لي خطفا لك سند القصيد دتتي زكورا أنت يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ناس فعال وكل ما أردته من كفال آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فردت عنك بارك لي يا ربي في أروفيا وغير آوجت بالمعروف ملكت لي بكونك الكريمة ما قال لي تفسير وتكريما أعطيتني ما قلب أنسى كلما منع من الضر ما أنت سلما كافاني من مالك فأنات بما لخير ساق كل من جار أكرمني بقل والله والآت ربي ولم يكن له كفنات ناجاني الله مكرم سمات تناجيا به كفاني الكمال وجعل الأكرم أنت أكرم والدرري بقير رد سلام أسأل وكونة القصيدة خارقة لأندة المفيدة يا هيو يا قيوم ذلي بذلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صلي وسلم وتقبل سال الكلام من على قاري أروفي بما يفوق سنة من مهروفي مهروف من رابي قالب ربه يا من كفاه القرور والنبان واللي يا رحمن يا رحيم يا حيو يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ساسلا مسلما ناجاك عبدك القديم ساسلا مسلما على مصاصع الخلاو رافقني لله جند الله وقت مجاهدة كل الله أكرمني الله بأهل البدر في البر والبحر وهلمي قدري لخير ساتي ويسوق الله أكدار لا إلا إلا الله بارك برم توبا Merci. Akani.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 التي أفنى خياته بخدمة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد بايع النبي بخدمة ما خاله أبايع اليوم رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله وفاء قد بايع وفاء ما بايعه بخدمة صديقي وحزم وشجاع خرج من داره بكباري إلى خدمة البهرية الغيبة أو الحربة ولكن كل ذلك قد أوجبه قب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبالي بما تراك من ورائه أو من أهله وأولاده وأتباعه وأشياقه قد تركت كلا لوجه الله جل جلاله وعز كماله وخال قصوري قلت والأهل عني تفرحت لمدح الذي أنحو مده الخشير بكي جلدي بكي طالبي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nu ngi leen di nuyu nuyoob jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyoob taalibe ak mbokkum taalibeem di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fii yokk kàttanam dëgëral ko ba mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul te mu ànd kook mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa gépp mbooleem kilifa diine yi ak jullit yi ak mbooleem taalibe yi disiyaare bu baax mbooleem axlu jataay bépp moo xam góor la walla jigéen moo xam mag walla ndaw di ziyaare bu baax mbooleem ñi fi nekk te teew ci jataay bi te jëmmi sëñ Xaadim tax bu nu ci jiitalee sëriñ Malick Ndiaye soldaaru sëriñ Touba mi nga xam ne moom la ñu àndal di sunu xarit di sunu wëllëre nga xam ne xame bi bu amee tey ginnaaw yàlla ak sëriñ bi jëmmam moo tax noo ngi koy ziyaare bu baax muy ko baax di ziyaare bu baax sunu wëllëre wi nga xam ne moo doon waxtaan léegi bi muy waaj jeexal dama wax ne bu ma dikkee lu may wax ndax dafa waxtaan ci Sëriñ Tuubaa waxtaan woo xam ne bu doon ab këll la toj kenn ku nekk ci ñun mën nga cee jële aw tojjit wu lay jariñ mu di jàmbaar noo koy sante bu baax di gërem di ñaan suñu borom guddal fan wi te dëgëral la di ziaré bu baax serigne khadim mbacké khasaid mom serigne Cheikh mbacké mom serigne Mahmadan nong koy ziaré bu baax muy ko baax nga xamné suñu sunu yi kuko japp rek dañuy japp ne koku ku bax la ndax gisunu ci sun bop lu tax sëtub serigne Touba domi serigne Cheikh mom serigne Mahmadan di sëtub Cheikh Masamba warno bëgg wala warno japp kon bu nu perek, rek bëgg no jariñ ak bëgg no dimili ak mbaaxam rek motax serigne khadim nong lay sante bu baax lay xam nañu bu baax sunu jëmm yi fi nga ko teg ak nit ñu jàppee waaye bu yàgg laa doon wax ne sëñ xaadim day bu feeñee woon feneen yorut dereti mbàkke santul mbàkke ñépp danañ ko dégg ci yoon wi ndax li mu nekk te loolu bu ma ko waxee dana doy misaal ci daaj bi mu fi daaj léegi nga xam ne ku tedd ki Cheikhul Xadim moo ko daan daajal boppam ku nekk ci lu mel noonu nag noo mën a sant ak foo mën a doon ak foo mën a dëkk yoon wi ñëpp danañ la dégg rawatina nag nga mel noonu ba noppi toll noonu ba noppi bokk ci yoon wi bokk ci bopp yoon bi ndax bu ne kuy waajuram ñu ne sëñ Cheikh kuy maamam sëriñ mahmadan kuy maamaatam cheikh masamba cheikh ahmadou bamba loolu doy na dalil ci tegtale ne nit ki ku baax la bu fekkee ne nekkul ci lenn it te nga dégg loolu rekk boo ko déggee te xamoo ko ni nga ne kooku ku baax la ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ne fu ngeen dégg nit ku baax bu ngeen toppee aw askanam càll la ku baax la bàyyeekoo té ba tay ji ñu bari ko ci dégg ku bax rek fam joggé baxna kon nang koy sant bu bax di ziaré bu bax kilifa ak bi serigne mam Mor mbacké mom serigne Mahmadan day mel ni moom la nu waroon a njëkk a tudd xel yi dana wax wa lutax serigne Cheikh ñëk ko tuddu waaye kilifa boo ko xasee tudd duutoo mën a teg kenn ca kawam moo tax ginnaaw bi nuyoo ñëpp sëñ maam moor noo ngi lay beral ab nuyoo noo ngi lay ziyaare noo ngi ñaan sunu boroom guddal fan wi am na yaakaar ju wér ci ne dina gudd fan dana wér ndax li mu nekk ku ci nekk sunu borom daf lay bayek sa bop nga xamne bo dundé ba bëgg dem rek yaay dem te lolu ñu bari xam nañ ci yoon wi ño xamne seenu dundu ñom ño ko yoro seen bop dañuy bëgg dem rek dem sa bu ndoyalé alhamdullilah ñoo ngi sant yalla bu baax borom bi diko sant ci def gi munu def ay doomu aadama yàlla mën na bind def nu nekk ay bàyyi ma bu boobaa it duñ ci mën dara di ko sant bu baax it ci boole gi mu ñu boole ci ummatu alayhi salaam mën na boole feneen te bu boobaa it duñ ci mën dara di sant bu baax Cheikh Ahmadou Bamba xadimu rasul diko sant ci tan gi munu tan boole ñu ci bopam ndax mutu ñuko mak mu baax mu ñu wax serigne makhtar mbay kayre daf daan wax serigne Tuubaa ne ko ëpp ngëb serigne waye bo doon ab serigne mutu nu lay talibé waye nun nga am Cheikh ibrahim Fall Babul Muridin danako wax lolu danako wax ne ko Mbàkke ëpp serigne te bo doon ab serigne mu dund lay taale ba nun nga am li tax loolu moy serigne Touba daf ñoo tan ni ko sang bi waxé légui tan ñu ci biir tànneef ak alayhi salaatu wasalaam yonante bi di tànneef koo xam ne ko tan mu nek khairul khalq julit ñi di ay ne rasulullahi moo leen sëriñ Touba di tànneef goo xam ne rasulullahi moo ko tànn génn ko ci nit ñi ndax sëriñ Touba nee na yàllaa ma seppee ci biir nit ñi teg ma fee na Ahmadou Bamba bokkoo ci ñoom nazaani minal wara baaxil xadim allamahum bi annani abdul xadim waaye nee na it rasulullahi moo ma seppeewaat ci biir mbindeef yi teg ma fee من البرايا الشمد ومنهم نسعني محمد كون رسول الله سبي وار نكو نيونو طالب سيرن توباي دي اي تانيف شيخ ابراهيم جوب المشعري بيمي واخ كي تانيف كوكو دا فا واخ سيرن توبا داف نيو تان اختار مختاره المختار نعم له فاختاره المختار والمختار داف نو تان tanef ci ci bi tanef ak sallallahu alayhi wa sallam dafa melni tay dañu jotoon digal waxtaan ci Ahmadou mbake dam legui la ma seigne Xaadim wax ne ma dama bëgg nga ci seigne touba legui rek sama xel da nek ci bi nu jëlee bi tek ko fi sang bi toog war ma gis mbind mo seigne touba da wax des na dir bu gat kuy wax ne neena naa te muy dutu ñu nangu mu koy waxe fi suuf fu kawé lu koy waxe man gis na mbind mi ci loxoof sëñ alxaaji mbacke mu tekke ne lolou limi tektale moy jamaru bu nek nekk touba dara jam day yok di yek dara yi ta'lu wa laysa tan wa man naxa min alwara jamaru bu nek rek touba dara jam day yok waaye jamono ju nekk kennam gi moom Sëñ Tuubaa ak beru gi mu beru di gën di feeñ di gën di wér di gën di leer Sëñ Tuubaa jiitu ñépp ci wax lu kenn waxul jëf lu kenn jëful am lu kenn amul mu tax bu ma doon la misaal Sëñ Tuubaa dama naan lan Sëñ Tuubaa mooy acteur ñi nekk fii léeg-léegi ñuy seetaan ab filmo filmo boo koy seetaan jëmmi acteur bi suye film bi kooku du faatu danañ ko dóor danañ ko xas danañ ko fetal danañ ko jam darañ gas ak kàmb tàbbal ko ci luy rey lu nekk danañ ko def waaye jëmmi ak acteur bi suye film bi kooku du faatu mané kon acteur principal bu l'islam mo Cheikh Ahmadou Bamba ma andil la bayit bi la in kana kaana al khalq awal ghalib fa hadha bi hamdillahi axiru xaalib kooku mooy acteur principal bu l'islam Cheikh Ahmadou Bamba loolu motax way kat ba bamuy way Serigne Touba daf ko kennal dafa wax ni ku lay def moroom it xam na ne xel yaa ko mën mbokk yi loolu doy waar ku lay def moroom it xam na ne xel yaa ko mën xam nga bu delloo waatan wax ji ci sëriñ bi day oyof waaye moom moom mu lay def moroom moom xam na ne xel yaa ko mën lewet gee tax ñuy dendandoo waaye noonu la ku not gaynde not segg ak mbëfër daq ñay mu daw du zoro ki booy laggal te yàlla gis na la waaye xoolal lewet gi mu tudd ci biir bi ko sëriñ Moussa Ka di jàngale lan la wax dane sëñ Tuubaa dafa lewet ndax karaama ki xar baax ak wilaaya ki mbooti xol ku leen masa am sël boo ku yow sëriñ Tuubaa karaama xar baax ak wilaaya ak mbóoti xol ku leen masa am sël boo kudul yow sëriñ Touba kudul yow dadaa sël boo ko dëkkoo rekk ngëm di alkee ka yàqantee ka fàddee ko roy Touba nga yor yiita làmboo rahmatallahi yàlla wet li ngay muñ te man koo faj amoom kem sëriñ Touba mu tax sëriñ Touba dafa yéeme dafa am ku ñuy tudde Ahmadou Bamba am ku ñuy wax Xaadimu Rasuul am ku ñuy wax Abdullahi ak al Abdul Xadim tolluwaayu tur yooyu mooy ixtilaaf di wuuteeg taalibe yi Ahmadou Bamba takk ndeer la Xaadimu Rasuul di jëmm abdullahi di xel al abdul xadim di ruux turu ruux kooku moo andi ne sëñ Tuubaa kenn xamu ko mooy andi xaabat maxaami an siwal baaxil karim wa inna ni abdun xadimun la yarim jëmmi abdul xadim yonte bi alayhi salaatu wasalaam alxuraan da ko wax ne ko nit ñi buñ ñëwé ci yow dila laaj lan moy ruh na ngi leen wax ne ruh mom birum sun borom la yasalunaka anir ruh khulir ruh min amri rabbi kon moy tektale ne jëmmi ruh mom kenn xamuko kon sëñ touba kenn xamuko motax wa yaxlaxu ma la ta'lamun moy sëriñ touba ahmadu bamba moy tak ndeer bi khadim rasul di jëm abdullah di khal abdul khadim di ruh loolu nag li tax ma ne mooy ixtilaaf di wuuteeg taalibe yi dafa am ñoo xam ne Ahmadou Bamba képp lan jàpp ci suñ Tuubaa muy mooy doomi sëñ Mbàkke Anta ak soxna Jaaratullah moo gën a jamono saran 1270 ci Mbàkke Bawal alxaaji Hamid bin Osman al Fuuti li turliyu bi muy misaal loolu xat wulidal xadimu man xat saraa sariatul muxtaari ama saraa ثم مدى لربه عام السموس وعمره عين ودالك السموس وقيل إن عمره المآل نلت المنى وسرك المآل ليلة الأربعاء في المحرم من بعد عزرين مدد فلتعلم سنتو بانك مو لير الجم تكندير بمدون وحنا لنلم ويدومي سنبك أنت سيلي أكسوح نجارة takender ndeer boobu moo sos yoonu murit ci atum asas 1883 Ahmadou Bamba takender ndeer boobu moo sanc mo mbake Bawal mo sanc daru salam takk ndeer boobu moo sanc Touba jëmmi takk ndeer bi la la wax nak dama bëgg ngeen di baye xel limay wax jëmmi takk ndeer bi moo def loolu jëmbi takk ndeer boobu moo duggoon fii xulwa ci jàkkaay daaru xudduus ji gis alayhi salaatu wasalaam nekk ci njëlbeenu kooruk desës di 1312 jàpp 1313 bi sëriñ bi di waaj dem ci géej gi yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñëw seigne touba nee na bi alayhi salatu wa salam bi ma demee ba bëgg ko jox loxo dana ma yow Bamba nga xamné sama sama ak yow ni mu soré mi ngi tollu ni buñ jëlën peppi suuf yi nas ko ay kurus nu gudday bi toll rek sama ak yow sore na nonu tak ndër bobu daal di wat ci bakanam tambali wat ay khulwam ba ci laylatul xadar gi seigne touba nee bi laylatul ñewé yonte bi alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwaatee sunu ñaari woom dafa sësaloo bi laa wala mani'a nga xamne dara doxul sama diggante ak sallallahu alayhi wa te boba tak ndeer la doon nak yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ni Sëñ Tuubaa xolna aduna àdduna sépp yaa ma ci gënal tay dama dik andil la midaay tay dama la bëgg nome nga nek xut bu zamaan jamono sëñ touba nee bi rasulullah waxee li dafa melni dafa am luma jox ma jël ko tafa ko ci sa deun daan ne ko li day neex na lool waaye am na ko gënal ma ne ko lan la munema ne ñap ci sa jëm ji fuñ ñi ci yalla ci yonante bi sama turante tek rasulullah ni ahmadu Bamba tak ndeer bi boba ahmadu Bamba la tuddu moy tak ndeer bi ne ko lii nga bëgg day fàtt na ndax inna na ishtara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi na anna lahumul janna te loolu saxaaba yi ñoo ko moomoon ak ñi doon jihaad ci yoonu yàlla sëñ Tuubaa nee na keroog yonte bi alayhi salaam day xaatabante ak man di xaatabante ak man ba ma naago ci jàpp ne lii mënuma ko am mu jekki-jekki ne ma li nga bëgg mën naa nekk waaye dafa am ay sart sëñ Tuubaa ca ngor ak jom ak fit ak bëgg yàlla ne ko day len kep la xamne ne moomu ko muy sama roh, waaye saa bu ngeen ma garanté le roh gi lu ngeen ma tek ci mitit ak tartar sama jom ak sama katan nako deku bur yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital bamba lisanul khal dal di ak cheikh bamba ca saaru yusuf mu teñu yen ba bam ma ne may na ma dalub lislaam yi sëf leen ma jor len ma dana ko jaamu motax takk ndeer boobu moo yebaloon boroom daaru moxti ndar keroog bi borom daaru moxti demee ndar 9 août 1895 ci ajjuma bi la sëñ Touba julli takkusaan yonente bi alayhi salaatu wasalaam dal ñëw fekk booba sëñ tubaa bind na xasida ak xamitu man yaasimu nii min ad-darar min kulli sheytaanin wal jinnin wal basar yonente bi alayhi salaam ne cëpp ne ko ahmadu bamba imzi wala tahsab darar man nga juk lahasu dem señe nan la bur lagal je jee aljuma gogu bi sëñ touba julle je dafa dajale mak ñi di waxtan ak ñu waxtan wu yag ma nga fa cheikh mohammed al fadal soxna fat ak ñen ci mak ñi nyiri touba di waxtan ak ñom ñi di mingi di daanu muy waxtan ak ñom ci gaay yalla waye fam waxtan wa dara juk tak ndeer bi la wax de ne len na ngeen xamne yunne, yàlla dafee yónnee yan boo xam ne masne ko rombul say man Ahmadu Bamba da na ko dankul ba aduna bépp di ko seen ma dem wat ak mom motax yen ban yaron qutbu ya ak labdan ya at nuñ ko nuñ ko la wax nuñ ko suñu xaadim nit da la jima yen dara nu ko jima diri wala nga wut koo ko wala nga jima xecc waye fekkulen ko fa ñoom fekku fekkuñu ko fa dañ ko fa ñukk moo ko fab raw gaaña dëngañ di wéy te watul balaaya suratul laxwa il am ci laaya maqaamatu aqtaabi tahaariini kullihim ku leen boole woon peeseek maqaamaam sëriñ Touba nu wat ci ay mbóotam te wat ci ay natoom te am naa ci ay tegtal yu wér ngir demuk Touba takk ndeer boobu moo déparé Mbàkke Bari Jolof jëm jeewal ca inni xarajtu yawmu sabti رابعا الشفر عمت جيسس من دار التي بنيتها في أرض جلف بعدما أتتني براوة أمير دار التي جرى بيني وبينه ما جرى من الخدر sëñ Tuubaa nee na génn naa sama kër fukki fan ak ñeent sama kër gi nga xam ne maa ngi ko sancoon ci suufas jolof ginnaaw bi nga xamee ne leetare borom ndar bi dikk na ci man ci li dox sama diggante ak moom ci ab dogal ولقيت وسيره الذي جمع جيسه إلى تلك الدار المبنية لتعلم وتعليم خزية ذلك الموضع يقال له جيوال sëñ Tuubaa nee na mu jëm ci sama kër gi nga xam ne moom laa ngir jàng ak jàngale daat ne barab bañ daje moo tudd jeewal xoolal keroog ba ko sëriñ Ka di wax la wax la dam fajaru mangal ya daal du yendu jewal Fanan fa mbot yere na buñ ko siwal neena kérok la gis ahlul badari ba nu subak subag di biir la nu ko dar mason na fanan jéwal ba dem ci jey sa sin ñu won ko fa mbolem lay xalo xew ba dem Touba ne na wagne ko fofa waye kon du am mayam yi mu am jalo re Serigne Touba mu fal wóllërante ak yalla jaayenta ay mbirum xalo jaj yeen boobee te woon mbër yi way Touba kok mooy Ahmadou Bamba tak ndeer bi tak ndeer mo nekkon jéwal Serigne Touba te fekk booba tubaab yi yónnee nañ ab délégation yónnee ay soldaar nga xam ne wax nañ ne deux cent cinquante SPI muy ñaari téeméer ak juróom fukk la tubaab bi yebal boole leen ak quatre mille cartouches muy ñeenti junne fetal jox leen ordre ne leen bépp barab bu ngeen fekk sëñ Tuubaa na ngeen tàmbali ci jur gi rey jur gi bañ jeex takk rey taalibe yi bañ jeex takk taal dëkk bi jàpp sëriñ bi andi moo xam muy dund wala mu ñàkk bakkanam na ñëw sëñ tubaa dajeeg ñoom jeewal sëñ tubaa nee na sëñ Abdou Karim Touré sama maalu jëw fas wi ba ma ne tàll ca montagne yu jeewal ba nee na iblis laa séen te jëmm jamu yor muy ku du ñëw naan ko yàlla ma masa yónni jamono jëral lu ma jóg damaa yónnee ci ñoom ay ndaw ñu lijjantil ma ko ahmadou bamba mooy benn leader boo xam ne moom la lislaam desee su ma ko daanee daan naa lislaam su ma daanee lislaam am na ndam sëñ tubaa nee na foofee laa séen iblis mu ñëw ba jege ma di arrière ma jàpp ne day daw fekk day jël ilaa mel ni xar muy dañ nee na di jël ilaa jekki-jekki ànd ak riir mu mett ne tëlli ci samay tànk ne detti ci suuf ma jël sama tànk ne ko tegg ci doq gi ne ko nuut mu ne ma Ahmadu Bamba teggi sa tànk ñu tàqalikoo tànk yu ma mas dugg yaa ca gën a tut waaye ca gën a dëgërle sëñ Tuubaa ne ay yasaminillahu ànd jéewale iblisu isna daytuhu bi yaa inna lasi maa a jéewali lahu ni daaxan muuxiyan bi yaa wali naa jeytuhu bi yaa nasiru yaa wali kafaytanit iblisu ànd jéewale takk boobu ba léegi takk boobu ba léegi moo nekkoon jeewal takk boobu suñu xaadim moo dem kokke moo dem Louga moo dem Ndar ci taxañ ko rek ndax jëmmi takk ndeeru suñ bi ci boppam Ahmadou Bamba dafa man gaa yi jëmmi suñ tubaa ji rek dafa man gaa yi waxuma xaadim rusul ji mu doon waxuma jaamub yàlla bi mu doon waxuma abdul xadim waaye jëmmi ahmadou bamba rek dafa man gaa yi jëmmi takk ndeer boobu moo demoon Dakar xam ngeen ne sëñ Tuubaa bisub bi mu jógee ndar dem Dakaaru moom moo nettalil boppam wax ne keroog saxaar gi ñu ko dugaloon ci wago yi ñuy dugal fos yi ak bàyyima yi ci lañ ko dugal waaye xoole bi mu demee ak yafa xew yëpp dir bobu seigne touba mo leral ni ab takk ndeer la ndax bo demé ci xasida ak ashiru al abraru hina aziru wa sanna al ida anni hunaka asiru seigne touba mo koy leeral uxaatibuhu bi mataxin wa huwa bi taybatin wa inni lahu jaarun hunaka yasiru seigne touba neena ma maa ngi xaatabanteeg alayhi salaatu wasalaam ca makkah ak ca tayba tuba bi ñom ñu japp ma rek japp ne man personne la waye bobu rasulullah mi ngi ma taf ci ab deñum naan man ahmadu bamba sama xarit nga Ahmadu bamba sama xarit nga Ahmadu bamba sama xarit nga waye xolal bimu tabbe ci bir gal gi mom seigne touba la nek khadim rasul bimu tabbe ci bir gal gi bàyyi leen ko rek ngeen déglu bàyyi leen ko rek waaye bi mu tàbbee ci biir gaal gi moom Sëñ Tuubaa ci la yore jëmm nag ci la jóge ci takk ndeer nekk ab jëmm allamani rahmaana fi safiina bi annani alxadimu sil madina waaye loolu mooy mbir mi nag mu jëmm ji xam nga nit ab takk ndeer mënoo koo sas ab liggéey ab takk ndeer mënoo koo sas liggéey jëmm la ne sas ab liggéey bi mu tàbbee ci biir gaal gi la ko suñu borom nome ne ko yow Ahmadou Bamba te sëñ Tuubaa ne na yàlla moo ma ko xamal allamani rahmaan la wax fi shafina lan la ma xamal bi na annani alxadimu sil madina kon maay liggéeykatub alayhi salaatu wasalaam moo tax mu waxoon ko ne ko antal karimu annal xadim dëhral udimu fi ko shanaa'i رمتمت الداقي يعطي فلاقي يكفيف الداقي مع العناي waaye xoolal bi mu suuba moom suñ tubaa war a nekk xaadim rasul fekkoon fi ku mel ni kaabu ak xazaan ak bursayri ñu nekkoon ay taggkate alayhi salaatu wasalaam moo tax ma wax ne suñ tubaa lenn lu nekk lu nit ma sa am suñ tubaa dafa dikk bokk kooku yow ba noppi am lu mu amut suñ tubaa njëkkut jamono mujjut jamono waaye taxaw na wax ne yàlla jox na ma lu mës a jox kenn te kenn dutu ko jox ilaya qaada allahu ma lam yakun wala yakunu abadan li mumkin te loola loo ca tànn na nga koy fekk jëmmi Sëñ Tuubaa loo tànn ci Sëñ rek na nga koy fekk lu ko yàlla jox te kenn amu ko te kenn dutu ko am boo jëlee mbindam muy tag gim tagg alayhi salaatu wasalaam dafa am ku nuy wax abdullahi al kumayli dafa mas a ñëw ne seex seex mahamadul bachir ndax sa baay Ahmadou Bamba moom li mu liggéeyal alayhi salaatu wasalaam ndax kenn mos na ko ko liggéeyal sëriñ Basiiru ne ko loolu day jaaxaloon na ma ba am na bis laaj naa ko sëñ ba bi ma ko laajee sëriñ Touba dana ma loolu jaaxaloon na ma ba am na bis laaj naa ko yàlla saa waaye ba ma ko laajee yàlla dana ma amut ndax ndaŋ leen a gën a sellal amoon naar bu ñu wax yuusufu ibnu ismail an-Nabahani nekkoon liban nga xamne egg na ci tagg alayhi salatu wasalam tag na ali salatu wasalam ba bis mu dugg xulwa dal di laaj rasulullah ne ko ndax tag yi may tag amna am na kenn ku lako ma mas a rasulullah hifenyo ko ne ko ku wax ahmadu bamba kenn jutul asakam ci tagama amon nar naar bu ñu wax koromoxo bamo jóge woon tuuba koromoxo bamo jóge won touba gi nek ci gi nek nakiri dem makka jaar liban ci adna bahani di ko siyaare adna bahani xamal ne ko fan nga jóge mu ne ko Touba mu ne ko ndax tuubaa nga nekk Sénégal mu ne ko déedéet ndax xam nga tuubaa nga nekk Sénégal mu ne ko waaw ku fa nekk Ahmadou Bamba anamu tubaab bi yóbbu nañ ko mu ne ko man de am na àjjana ju leer naññi am yu ko ci jaamu gi may jaamu yàlla am yu ma ko ci tagg gi may tagg alayhi salaatu wasalaam maa ngi ko amee ci nangu gi ma nangul Ahmadou Bamba te gis ma ko naar boobu moo doon wax naan xawan njaareemu علوما لله والفضل لا يمن والفضل للخير ممنون قوى القديم الذي لولاهما شيدت على الجباه ولم تقرب به نون إن امرأ فاته المختار من مدر وفاته قادم رسول معبون nee نجارم لامونا làmmoon اك خم خم بو خمني benn dëkk amu ko daan ne budul koon Cheikh Ahmadou Bamba moo nekk njaareem genn si jaara du am nganug jë te kon kenn du jàng alxuraan daan ne budul koon Cheikh Ahmadou Bamba moomu képp koo xam ne rasulullahi raw na la nga nekk fekke jamonoy Serigne Touba di yokkee ba mu raw la nee na perte nga nee na ku rasulullahi raw Ahmadou Bamba raw la perte nga moo tax Serigne Touba bi mu sóoboo ci liggéey boobu dafa wax yow yàlla ne ko dama bëgg ti suite li gëna gaaw nga def sama maqamam ma melni maqamam anash na melni kaab wajal maqami maqaami al murtada anash fi qitmatin wa kahzan asin arabi yàlla ne ko lolu jaayante la mu daal di sóobu lil mustafa al karim fi kull sana alayya am daa quntura mustahsana dana yalla dana war dana jaaru ci man ahmadu bamba ci at mu jot mu wut ay tag yi gëna jek tag yi gën a rafet jëmee ko ci sallallahu alayhi wa sallam yan tag yi nekk hadiya ala man alayya wa lastu sadiq lahu kulla amin hadaya almadiq lil mustafa allazi turam lahu salati salam ma imtidaahi kullu aam rumtu min almukarram nga xam ne at jot man ahmadou bamba damay nekk ci di liggéeyal alayhi salatu wasalaam ak di ko salatu salaatu sitta bi mat ishita tatihi bat ma ihtishaai daal di egg ci wax nag ne tagg gi may tagg alayhi salatu bor la ci man bamba sëñ Tuubaa ne tag gi may tag rasulullahi bor la matxu rasulul karim bi istanjabi min al muharram daynun li ila rajab daynun li ila rajab moy damay tambale muharram safar rabiul al awal rabiul sani jumada al awal jumada sani ba rajab di tagg alayhi salatu wasalaam jumada sani rajab saban ramadan sawal sunu aqrasul hijja ma ci sante borom bi subhanahu wa taala motax salatu sita bi mati si tatatihi battama ihtizai waye xolal bim soobo ci liggéey boobu mom seigne touba abdir bu kat mu wax dal ne man Ahmadou Bamba li ma doon sàkku muy mel ni anas ak kaabu léegi yàlla may na ma ko li xutta ma sax-saqa an ni danas surtout xadimal Moustapha mislu anas sëñ Tuubaa nee na diir bu gàtt laa suubu ndax tawaytu tariqal qawmu waxtanti daaqihi wali qad qadal xaazaati bi rawdi wal bashi mbooleem fu gaa yi yàlla daan def juróom fukki at ñeent fukki at man sëñ Tuubaa su ma ñëwee ci juróomi weer laa koy taxañ ndax yàlla ma koy taxañal kon motax mu wax ne yalla setal na ma wicc ci ay tas waye bu ñëme ci alayhi salaatu wasallam man ahmad bam mak anas ño fayam kep dal na waaye yalla ñi nga xamne sama diggante ak ñom junne at yu mat yu teg la ma juk tolo ak ñom ci diggante bu gatt légui ndax man sama ngor dana ma may may tolo ak ñom ba bari tukki légui yow yalla dama bëgg nga may ma ma jitu kaabu jiitu anas jiitu bursayri jiitu képp ku mas a jóg di tagg alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko loolu da ngay sóobu mu daal di sóobu moo tax Serigne Touba ne na bi ma sóoboo yoonu yàlla woowu di liggéeyal alayhi salaatu wasalaam ñaar rek laa dog sirum tànk muy Abdul Qadir Jeylaani ak Ahmadou Tidiane yi nee na ñu doxub diir Abdul Qadir Jeylaani ne ma Ahmadou Bamba tee ngaa toog ñu jox la ci lu ñu yàlla jox Serigne Touba ne ko bàyyi leen ma keleen jox mu jox ma mu ne ko mënuñoo dem ndax fa nga jëm kenn musu fa dem Serigne Touba ne ko nég leen ma dem di ñëw daal di sóobu yoon wa di dox di dox di dox di dox sëñ Tuubaa ne damaa dox ba ñetti kuréel kuréel gu ci nekk boole xam-xam ak sañ-sañ ak man-man ak kattan jot ndigal bu fi kenn jàll sëñ Tuubaa nee na ma ne asalaamaaleykum kuréel gu njëkk ga ñu ne ma Ahmadou Bamba nun ñii yàlla dañoo jox xam ak sañ-sañ kattan jox ñu ndigal bu fi kenn jàll sëñ Tuubaa nee na ma boole xam-xam ak sañ-sañ ak kattan jox ndigalal bu la kenn tere jàll teg sama ñett ci suuf di jëflante ak ñoom ci teggin di jëflante ak ñoom ci teggin di jëflante ñoom ci teggin bañ na ma ay néewen Ahmadou Bamba xamee sus nees nay def mën ngaa jàll sëñ Tuubaa nee na ma jàll kuréel gu njëkk nga dem ci kuréel gu ñaareel ga ñu ne ma kuréel ga nga romb seen kattan ga ñoo ko ñaar ñun ñii la yàlla jox xam-xam jox ñu sañ-sañ jox ñu kattan jox ñu ndigal bu fi kenn jàll sëñ Tuubaa nee na ma boole xam-xam ak sañ-sañ ak kattan jot ndigal bu la kenn teree jàll teg sama ñett ci suuf di jëflante ak ñoom ci teggiin di jëflante ak ñoom ci teggiin di jëflante ak ñoom ci teggiin bañ na ma ay néewén Ahmadou Bamba xamee suus nees nay def mën ngaa waaye wóor na ne kuréel gu ñetteel ga moom kenn mësu koo jàll sëñ Tuubaa nee na ma jàll ci kuréel ñetteel ga ñu ne ma Ahmadou Bamba ñun ñi la yàlla jox xam-xam sañ-sañ ak kattan jox ñu ndigale bu fi kenn jàll sëñ Tuubaa nee na ma boole xam-xam ak sañ-sañ ak kattan jot ndigale bu la kenn tere jàll tegaat sama ñett ci suuf di jëflante ak ñoom ciy teggiin di jëflante ak ñoom ciy teggiin di jëflante ak ñoom ciy teggiin ba ne ma ay niiwén Ahmadou Bamba xamee suus nees na def mën ngaa jàll sëñ Tuubaa nee na ma jàll ñetti kuréel yépp di dox di dox di dox ba sama kattan jeex sama sañ-sañ jeex géej gu rëy dox sama kanam sëñ Tuubaa ne na géej ga rëy na ba kenn mënu ko xuus géej ga rëy na ba kenn mënu ko féete kaa soxlaa nga sa ginnaaw sëñ yow doy nga war ma ne ay waay dimbali leen ci addi sëñ tubaa téeméer téeméer la soxla ku ne jox ma téeméer gi sëñ tubaa waaw ay waay seet leen waay ci addi sëñ tubaa ji seet jërëjëf Baye Fall Café seet seet tey la tey de soxna Ndeye Diop soxna Ndeye Diop soxna Ndeye soxna Ndeye Diop tey la tey waaw <laughs> waaw tey la tey seet amiin ak sëñ Tuubaa seet jërëjëf sering bay jaxate dafa wax ne Alhamdulillah nun amnan nan sëriñ bu nu doy bu nuy fegal ne ko sedd ab xol te dal am xel te góor yi gëtit te day sëriñ sépp ak yéefar yi kenn yëbu ko sëriñ ma ñetti di dox di dox di dox ba sama sañ-sañ jeex sama jeex sama kanam sëñ Tuubaa nee na géej gi rëy na ba kenn mënu koo xuus rëy na ba kenn mënu koo féete kaa soxlaa nga ca ginnaaw muhammadu rasulullah nee na foofee laa taxaw di ko jóor antal karimu annal xadimu dëhral uddimu fii ka shana i nabiyun rasulun gayra abdin wa shayidin xalilun xabibun misluhu laysa yonladu lam yabdu mislul mustapha muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadu nee na rasulullahi ne rëpp raasu wurus ma ahmadu bamba man ngaa jàll ma dimbali la sëñ Tuubaa nee na ma jàll ca raasu wurus ba rasulullahi ne ma ahmadu bamba fii benn góor yàlla mësta xàlli ba fiy jaar yaay mbindeef mi fi njëkk teg sa tànk ahmadu bamba waxal gan ndomba nga bëgg ma takkal la ko fii la ñu takke ndombal tànk yi sëñ Tuubaa ne ko takke ndomba nii mu fi mu ne ko lan mooy sa bëgg mu ne ko tool bii da toolu toolub lislaam bëgg ngeen def ma jëwriñ ji ëllëg bala ko kenn ñaaj ñaañ ma rasulullahi ne ko dus la ko dénk duñ la ko sirax dan la koy may mu ne malaktuhu xattu yadi shinina wa qaadalil mafruda wal masnuna moo tax sëriñ Moussa ko wax ne la yonnan ba ruujoon góor ña booyal ko yaa ko bay bu lislaam doonoon ab tool ñu jëwriñ ko sëriñ Touba moo tax sëriñ Touba bokkut ak ñi dafa bàyyi nit ñi ak lu ñor moom sëriñ Touba jaawastu naas wa maa fi aybi naas ila rabbi naas falamma wasaltu ila rabbi naas aataaniya nafu naas wa kafaani durru naas sëñ Tuubaa nee na bàyyi naa nit ñi ak liñ yor dem ci yàlla mi borom nit ñi mu ne ma Ahmadou Bamba seen i njëriñ ak ñii fegal naa la seen lor kon bokkut ak ñii moo tax mu wax ne man Ahmadou Bamba léegi boo demee ci alayhi salaatu wasalaam maa fa jiitu kaabu maa fa jiitu xasaan maa fa jiitu bursayri barra anil quduusu min kullu danas wa inda xayrul xalqi jaawastu anas jaawastu anas mooy jiitu na anas yàlla setal na ma wicc ci ay taas sëñ Tuubaa nee na ñett yi mësuma koo séq ak yàlla lu la ko tax a def waroo ko wona def lii du lu ñuy def ak bul ko defati nee na mësuma koo séq ak yàlla nee na yàlla li ma séq ak moom mooy yàquudu lii kun fa yàkkunu xaaj yi min ka bilaa yàq din wala tu yi andi mu ne am waaye foo koy dugal foo koy yóbbu sëñ nee na séquma ko yàlla raditu anil baaqi wa an xayri xalqihi wa fi wa xasaana jaawastu kaaban wa xasaana mooy jiitu na kaabu jiitu xasaan léegi nag mu des lan mu des abdullahi sëñ tubaa fam jaamoo yàlla kenn jaamur yàlla sëñ tubaa jaamu yàlla ci ay xur jaamu yàlla ci géej jaamu yàlla ci barab yoo xam ne kenn mësu fa taxaw di jaamu wala nga kabbar jëmale ci borom bi subhanahu wa taala bis seex Mouhamadou Lamine Diop addaga nii sëñ Touba daa wocc tànk ba génnal ko fa ab léget daanaka Mouhamadul Amin mu ne ko mbakkee mu ne ko li doon matt fii day daa matt ba ca bay eex ba te wokkul xasanu wun na samu rek waaye Mouhamadul Amin mu ne ko mbakkee mu ne ko seen jëmm yi rek a tax ak jaamu yàlla. kon jaamono yàlla fu ko kenn jaamu wut moo tax ay ibaadaatu naa faqat ya ibaadaatu xayru naa sëñ Touba nee na sunu jaamu yàlla moo gën a kawe jaamu yàlla kum du doom moo tax. mu àgg ci al abdul xadim al abdul xadim nag mooy kékk nga xam ne boo ca xasa àgg mooy ku kompale lépp moom sëñ tubaa sëñ xadim sëñ tubaa bi mu eggee ci al abdul xadim ci la kompale matale ci lépp nga xam ne li ñuy tudd kenn كن جيسين توبا دون بيم إجتيا عبد الخادم دون كن كلب نك بفكر جمم سين توبا كن أم بندم كن لا أيدكم كن لا بفكر جمم سين توبا رواحني يلا في دسال سمج جمم ماي معجزة صلى الله عليه وسلم أبغيتني معجزة للمنتقى ومن لم يوافقني لقامتها yalla fi dessal sama jëm may kawtef ci alayhi salatu wasalaam waye xolal kep ko xamne ne ak man lo ragal rek lay ngay gis motax jëmum joju dafa am mu nekkon gannar di tag sallallahu alayhi wa bis yalla ne ko tagal ahmadu Bamba te nga dem jaarem nga siyaare go te mang lay yóbbante ci mom bo deme nang ko xamal ne ko ku jamono te ak mom te nangul ko texen nar bobu kero bi mu jógee jaar ci ay barab nga xamne jaar ci Cheikh jaar ba dik ñaarem fekk Serigne Touba genné fooy yi mu doon taggee sëñ Touba daan ne ko dey sama borom moo ma digal ne naa ñëw siyaare si la te yàlla damaa yóbbante ci yow yàlla damaa wax ne ma Ahmadou Bamba ku jamonte ak yow te nangu la texe na keroog bi mu ko waxee sëñ Touba daa mel ne ku mer daa këf téere mu yoroon daan ne ko lenn képp moo ma naqari sama diggante ak yow. mu ne ko lan mu ne ko nëbb gi la yàlla nëbb sama diggante ak moom daan ne ko waxuma la ko jamonante ak man waaye la tàmbale ca millatu aadama ak xawaa ba fa addu di yem képp ku fi dégg turu ahmadu bamba mu neex la su borom jégal la kon jëmmam su fekkee mbindam sëñ ci man sëñ tubaa nee na samay mbind dafa bokk ci mujisaati alayhi salaatu wasalaam xasaa idi min mu'jizatil muntaqa su fekkee jëmmi boppam ji ma la wax léegi nii jëmmi boppam sëñ Tuubaa nee na sama sakk la maanaam dessin comme tey ji nga taxaw rek dessin nit sëñ Tuubaa nee na sama dessin rek rek rek amul kenn ku mu nurool ci àdduna ak àllaaxira matxu nabii xaadali maa lam yura shakli wa fi daarani shakli lan yura shakli la wax dessin li ñuy tudde hors-série yi mooy Sëñ Tuubaa benn marque yonente yi téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni malaayka yi kenn xamul seenam lim xutbu yi ak xawsu yi aqtaab yi ak nujabaa yi ni nu baree waaye ci biir Sëñ tubaa moom na ngay fekk afradanil baax yi fa surtout fardan ahinu mooy Sëñ Tuubaa képp Sëñ Tuubaa rek Sëñ Tuubaa dong amul morom loolu moo tax xam nga Sëñ Tuubaa sunu borom moo jël kun fa yàkkun teg ko ci loxoom ngir ñu dalal sunuy xel ci liggéey yi ñuy liggéeyal sëñ Touba sëñ Maam Mor Jaara borom sàmm daa mas a ñëw di nuyu sëriñ Touba fekk mag ñi ci biti ñuy liggéey mu jàll ci biir daal ne sëñ Touba mag ñi day ñeewu leen waaye dama leen a ñeewante sëñ Touba ne ko boo xaman li ma leen fàggul doo leen ñeewante waaye nag leen di ñee mu ne ko man ne xam naa yiwu njëkk li muy fayet taalibeem bu ko liggéeyal sëñ Touba ne ko ana kan nga ci xam mu ne ko am na ku ñuy wax Ahmadou Cheikhou nee na sama taalibe su ma liggéeyalee benn fan dana ko ci defal jaamook yàlla ak téeméeri téeméeri at yu nangu ne ko am na weneen wàll yit woo xam ne nee na sama taalibe su ma liggéeyalee benn fan danaa ko ci defal jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yu nangu Sëñ Tuubaa ne dënn ba mu yàgg ne ko moor mu ne ko mbakke mu ne ko ndax xam nga lan laay fayee sama taalibe bu ma liggéeyal sëñ moor ne bu ñu ko xamee jël Sëñ Tuubaa ne ko sama taalibe su doon liggéeyal maanaam di ma sàkketal sàkket ba ngànc gi muy sàkkete dagg diggante bi mu taxaw di ko fostalewaat defal naa ko ci jaamu yàlla ak junne at yu nangu borom baar jaara ne ko na dem ci jiiti liggéey yi loolu moo tax ku ñu wax sëñ Demba Kebe sëñ Tuubaa da ko mos a wax ne ko Demba Kebe mu ne ko Mbakke mu ne ko am sëriñ bu mat sëriñ mu xam la nga xam ko jar na lu ne sëñ Demba Kebe ne ko alhamdulillahi Mbakke ban la amee xam la nga xam nu sëñ Tuubaa ne ko dembake Kebe mu ne ko Mbakke mu ne ko yowmal xiyaam gañ jëm Anda fa ku ñu rus mo gëna yom ñu rus la fa suñ dem bakke be ne alhamdullilah alhamdulilahi Mbakke ban fa ande ak yow mënu rus suñ tuba ne ko dem bakke be mu ne ko Mbakke mu ne ko yowmal xiyaam dem bu yalla sa borom agge ci waxtu ba mu war taxañ bi bu ko dee taxañ gu ruugu aju ci man ta yaakar ma danaa la won sa këru aljanna te doo ko am naar bu yoxu suñ tuba ne ko yakamti yu mako way dafa fek motax tax suñ ma day xelil suñ tuba suñ tuba di japp ci njaareem sëñ ma jëmm bi sëñ Touba jàppoo ba ësk ci tànk bi daal di koy yëkkati fëggu ko ne ko ma jëmm mu ne ko mbakke mu ne ko xanaa tànk bi tuut na lool mu ne ko lool mu ne ko mbooleem lu yëngu ci àdduna tànk bi ko yëngal ne ko ma jëmm mu ne ko mbakke mu ne ko yow mal am nga ñu jëm bu yàlla saa borom teewee rasulullahi teew saaliqiina yi ak xutbu zamaan ak borom jamono yëpp teew bu boobaa man Ahmadou Bamba kepp maam sañ na ñokket ne suñu boroom lépp loo ma digal def naa ko musuma def looy tere jàmm ñëpp ku mën sañoo ko musuma def looy tere loo digle def naa ko jéggalal jàmm ñëpp ku dul mën sañoo ko moo tax sëñ Xaadim bi sëñ Tuubaa nekkee gànnaar ngir ñu xam ne sëñ Tuubaa kenn la daf ci am ay xisas yoo xam ne sëñ Tuubaa da koo séqoon ak naar yi ci gànnaar ngir ñu xam ne sëñ Tuubaa kenn la bi sëñ Tuubaa nekkee gànnaar dafa am bis boo xam ne sëñ Tuubaa daa dem ci naar yi ñu jiit ñu jiital ko mu julli tisbaar bi jullee ba noppi yeneen mbokki naar yépp dañoo ñëw ne seen imam bi leen daan jiite kawru bi nit ku ñuul kii nga koy bàyyi muy ñu jiite loolu mënul wëy ndax xamuñu fu diinam toll wala fu taw xiidam toll seen imam bi na leen léegi ni ngeen def mooy bu takkusaan jotee yéen ñi ñëpp kenn ku nekk na ngay jullee sa kër su ko defee sëñ Tuubaa bu dikkee fi fekkul ci jàkka ji kenn bu ëllëgee bu ñëwee du jute ñoom ñu d'accord loolu dem kenn ku nekk taxaw sa biirum néeg waaye ba takkusaan jotee nga lal sa der taxaw sa biirum néeg ba nga ne allahu akbar sëñ Tuubaa moo taxaw ci sa kanam di la jiite ci julli gi ba noppi nekk ci jàkka ja di jiite moom Cheikhul Khadim loolu moo tax dafa am ci gànnaar naar boo xam ne lu mu mas wax dëgg la daa mas a xëy bis wax mbokki naar yépp ne leen bu subaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafay ñëw ku bëgg a gis rasulullahi rek bu subaa ñëwal bët set yor yor naar yépp teew ñu seen sëñ Tuubaa mu war ci ak gëléem bi ñëw naar bi waxoon loolu naan kawru bii di ñëw nit ku ñuul kii di ñëw ku am saas la moom mi war a gis rasulullah bi sëñ Tuubaa dikkee ba yësal gëléemam naar bi waxoon loolu dafa giñ ci yàlla ne maa ngi giñ ci yàlla ne kii mooy rasulullah ndax melokaan wii la ma rasulullahi waxe woon ne noonu laay ñëwee te ko mooy saa kaxtafal Moustapha xattaa ka annahuma law la nubuwatu saa sawbaani xat na sa jàng nga xam ne bu dul woon ak rasul gam doon ñoom ñaar benn képp lañu ñu doon ku ñu wax Mahmoud At-Tandaxi yi bokk na ci ñi mujj ci sëñ Touba bi sëñ Touba di dem Touba li ko indi ci sëñ Touba mooy daal di fekk sëñ Touba di julli mu daal tàbbi ci biir julli gi waaye bi mu rek. tàmbali di xalaat ci am xelam naan kawru bii dafa koo fekk rek mu julli xaw ma fu diineem toll wala fu taw xidam toll may ànd ci ak julleem loolu daal doyu ma li may def mooy bu julli gi noppee naa beraat sama julleeg bopp keroog bi sëñ Tuubaa jullee ci njaaree ba noppi dafa tijji feneen tarba daal di jaar ci aw turam yaa Mahmoud at yi axbarani jadduka bi anna man salla xalfika man salla xalfuhu sallallahu alayhi wa sallam dana ko yow mahmoud atandaxi na nga xam ne samaam rasulullahi ñëw na fi léegi ci biir julli gi li ma xibaar te wax ma ko mooy képp ku julli ci sama ginnaaw mi ngi mel ku julli ci ginnaaw rasulullah naar bi am yàqin gu wér ci ne ak juleem baax na waaye ab xolam sedd ci baatub jadduka bi ko Sëñ Tuubaa wax ndax moom da doon sikki sàkk ba xam ab sërif la wala lub sërif Sëñ Tuubaa ne ko axbarani jadduka bi annaka sërif walakin la tantafi ilayhi samaam xamal ne ma ne ab sërif nga waaye bul geesu ci loolu ku ne wax ibrahim momit annar la won de kon dëkkoon yoron soxnam ñu sey ay at mënuñoo am dom ben bis men mbokum nara ne ko amna waliyu yalla wu mak wu nek senegal ci njarim koku day ku jafé gis la waye bo fexé ba gis ko bu la ñaanalee dara nangu ibrahim moom mu ne ko comme que man damay commerce di jënd ak jaay di dem Gambie di jëndi bagage di kiri di ko jaay te su may dem bi damay jaar Sénégal léegi naa fa jaar su ma gisee Ahmadou Bamba moomu xam ne sama chance la su ma ko gisut it nekk ci sama liggéey keroog bi mu wàccee ci gaarum Njaaréem bi Sëñ tubaa daa yónnee ay ndaw ni leen gàttandu leen ma ko ñu wax Ibrahim naar yi bi ñu duggee ci gaar bi naan ana Ibrahim ana Ibrahim mbokkum naaram ne ko yow doo wuyu mu naan ah man kat ñii xamuñu ma te Sëñ Tuubaa xamu ne maa ngi ñëw ñu ne ko waa yow Ibrahim la ñu wax te mel ne yow képp yaa fi tudd Ibrahim doo dem wuyu boo demee bu dee yow la nga xam ne sa chance la Ibrahima moom keroog bi mu demee dafa fekk sëñ Touba ci njaare mu toog ci am mbaar daa jub sëñ Touba rek sëñ Touba jóg joxoon bi ko loxo bi ne ko yaa Ibrahim inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Ismail nun nanan la bëggee la ci doom bu góor boo xam ne aw turam mooy Ismail naar bi daal di bind li ko sëñ Touba wax bind waxtu wi ak bis bi dugal ci poosam daal di continuer dem gànna dem Gambie bi mu demee am ñaari semaine ñetti semaine delluwaat gànnaar tijji ab néegam fekk soxnaam ab liir mu daan ne waa soxna si lu xew man bi ma fiy jógee yëguma woon ne dara dala jot soxna si ne ko man day bis sàngam waxtu sàngam damaa jekki-jekki rek sama biir yëngatu ma wasin am doom naar bi daal di xool jamono bi ko soxna si wax ak heure bi ko soxna si wax moo tombeek ak bis ak heure ba ko suñ tuba doon joxor bi naan ko ne ya Ibrahim inna du basiruka bi gulamin ismuhu Ismail, mu daal di yéemu na daal na soxna si waa bi ngeen ma xoolee ba sonn gisu ma nan ngeen def mu ne ko nun dee danoo fàttaliku ne amoon nga baay bu yàgg boo xam ne Ismaayla la tuddoon ñu tudd ko doom ji naar bi daal di gën a yéemu nag ci yaa Ibrahim inna nubasiruka bi xulaamin ismo Ismaayil lii ma la wax sëriñ Assane Bousso moo ko nettali Serigne Soxayb bu Serigne Saalihu Mbakke nee na bokk naa ak naar bi genn ko saxaar naar bi nettali ma loolu. am na ku ñuy wax Ili Cheikh moom it ab naar la woon dëkkoon gànnaar Ili Nekonku ku amone ijaba nga xamne lu mu ñaan yalla mu nangu dafa am ku mas a jóge ci senegal dem ganna fekke ko fa bi mu mu tëju ñaari semaine mënu ko gis Eli Cheikh dal li xey rek tijji buntu bi dal ne ana diw mu ne ko maa ngi nii mu ne ko ko ndax mënuma laa faj say aajo mu nekk ko dal ne Eli Cheikh lutax ba mënoo faj samay aajo mu yow de na jamonante ak waliyu mak mu Ahmad bamba jokk won sa Johon joxon sa bop wax abdul akram bayyi ko fa ñew fi di fi sakku ji leuf motax ñu seppé sa gétt aljana yubbu ko sawara te mënuto jëf lu tax ñu seppé ko sawara yubbu ko aljana kon wayrun liman amni tawalla mudibira ba'da iradatin wa amni sabara amna ko koo ab la won lu yemi bak Cheikh Ahmad Bamba ab sàcc la woon daa sàcc aw nag ñu dàq ko mu daw dugg njaareem ci kër sëriñ Touba fekk sëriñ Touba ci xaal ju yéeme wallaahi billaahi fekk sëriñ Touba ci xaal ju yéeme mu dugg rek dal ci kanam sa jàkkaaru sëriñ Touba ci diggante bi sëriñ Touba seexal ko mu génn daje ak ñi ko doon dàq ñu sukk jëblu ci moom dafa am ñetti naar ñetti naar yoo xam ne dañoo ñëwoon njaareem suñu xaadim daal di wax ne sëñ Touba mii ñuy wax bu fekkee ne wilaya gi ñu koy ji ñi dëgg la tey nekk lu sax kenn ku nekk day am mébét ci am xelam daan ne guddi la kenn ku nekk daan ne man ab reer laa bëgg ci daan man daal bu fekkee ne sëñ Touba wilaya gi lu dëggu te sax man ay ginaar laa bëgg na ma fekk fii ci guddi gi ma reere ko kenn ki daan ne meewum gileem laa bëgg keneen ki daan ne reeru boppam ba muy reere daal xam naa ne mooy gën a baax moom laa bëgg ñu dem ba ñu julli jee ñu jekki-jekki dégg koy daw di ñëw dikk ba ci ñett naare mu ne ana diw mu ne ko maa ngi nii mu daal koy buux benn bool ne ko suñ tubaa la ko jox nee na sabrere yow képp mu daal di koy tijji fekk mu nekk ay ginaar mu daan ah man de sëñ bi gis na ma seigne may Saar mi non ratt giléem yi mu ratt giléem yi seigne touba jox ko ci ap kok ne ko demal ci pinci ma diw sangam ma nga fa nga jox ko kok meew mi mu ñew jox ko ko mu ne ah ma de seigne touba gis na ma ñu baye bu guddik xaj ñettal bi ñewut ñu commencé wax ah xamal na ko gis yep mom yalla kepp ko man man na gis ben gis ñaar waye gis ñet yep mom yalla kepp ko man ñu baye ba xaj fajar gi di xoti ñu jekki-jekki ci riir mi ak fajar gi ak sedd bi ñu jekki-jekki dégg koy daw di dikki ba ñet na dara ana diw mu ne ko maa ngi nii mu ne ko kay wuyu serigne bi mu dem fekk serigne tuba tok serigne tuba dal di koy buux ben bol dal ne ko sab reere yow kep mu dem ba bëgg ko jëfëndiko serigne tuba ne ko Dakar demal ba ci ñooñ ngir ñu séré ko mu dikk ba ci ñoom dal di koy tijji fekk mu la xub dakar bo xamne ne fay yag ba commencer di verte ñu fekk ci ben rëdd rëdd bobu moy wane ne ci la serigne tuba don barkelo ñu di xamne lolu deug la bokk na ci yooyu sëñ xaadim bi sëñ Tuubaa dem ci géej gi lu yéeme dafa bind ay téere def ko ci ak gaal jox ko maam Cerno Ibra Faati borom daaru mooti daan na ko Cerno mu ne ko Mbakke mu ne ko gaal gi su may tukki ba keroog may ñibbi wat lépp lu nit ñëw di la ko laaj boo tijjee gaal gi ni ko ci fekk bi sëñ Tuubaa demee ab diir am naar bu ñëw ne ko ana mu ne ko seex tukki na ko man day daa am ay masala yu ma don laaj yo xamne mbollem ñima ci yaakar ñepp laaj na leen xamna ne dal seigne touba kep mo ci man dara borom daaru ne ko cheikh da tijji cheikh da tukina na waaye ma ñëw dem tijji ga fekk ki ba nekk ci kaw seigne touba bind ci at sangam wer sangam bis sangam mu ci agge nar bu tuddu nangam dana ñew li lay laaj li mo tontu ñu takki ay wer am soxna su dik bodom ay rap sadoko mu dik ne borom daru ana cheikh mu cheikh day tukina mu man day sama dom ji ay rap moko sad te serignu bari wër len munuñ ci dara serigne touba dal la ci yakar mu ne ma ñew dem ga fekk serigne touba bind ci at sanggam wer sangam bis sangam buñ ci agge soxna su tuddu nangam dana ñew day bot dom ay rap moo sad bo boo ci xeri kër gi nangam ak nangam ak nangam le ko nangam safara nga xam ne diir bi sëñ tubaa tukki lu ñëw noonu lay demee ba keroog bi ñu jëlee sëñ tubaa tàbbal ko ci mbënd moomu ci gaboo nga xam ne sëñ tubaa moo ko nettali sëñ Hamsatu Jaxate ne ko tubaab yi keroog dañoo gas kàmb 70 mètres lal ci taal ci sawara ba mu tàng jër ñu lal ci ay sawara mër-mëri ci suuf ne ko ba ma doxal bërëb bu neexe jàmm yàlla ngoogu sëñ tubaa nee na keroog damaa dox ba jub barab bi daal ni sëkk taxaw tubaab yi di lakkante naan ku dëgër bopp la waaye ahmadou bamba barab bii ñi ma wu fi sëñ tubaa ne leen ngeen booba rasulullahi moo ne ma ahmadou bamba nekk ma ma jiitu ci biir kàmm gi sëñ tubaa ne na su ma goree naa fonk alquran ndax téere bu yàlla bind tàbbi na ci biir kàmm ga alquranu karim ma peek ma tàbbi ci biir kàmm ga sëñ tubaa ne diir baa fa def nekkuma woon ci kàmm ga waaye maa ngoon bar sàq booba la ma yàlla ne ma ba faw doo fi xam ni nga xam ne keroog bi sëñ Touba tàbbee ci kàmm googu juróom-ñaari fan la fa sëñ Touba def Touba bi keroog dañoo bind ab leetar yónnee ko Seex Sidiya mu traduire ko ñu yónnee ko Cheikh Ahmadou Bamba yónnee ko maam Thierno Ibrahima Fati borom daal moo ti keroog la kër gi jaaxle lan lañ ci bind sëñ Tuubaa faatu na borom daaru moo ti toog ay fan lekkul naanul dem ba ci biir jàkkaam am ñu koy jëw naan borom daaru dey yónnee na ab leetar na sëñ Tuubaa faatu na léegi ni muy def mooy day yeewi soxna yi rek gone yi ñu mu ci mën mu téye ko ji ci biir jàkka ji soxna Fatou Issa daal di koy yëkk daal di koy woo laaj ko lu xew mu ne ko li xew day neexut wax ndax sama mag ju baax ja Ahmadou moom la bind ab leetar di yëg la daal ne wàccatul soxna Fatou Issa ne ko waxuñu dëgg ceer noonu la sam xel noonu waxuñu dëgg daan ne ko am na bis tawet jooju daan ko dal bis mu daanal ko xaw a metti ci moom lool mu toggaloo ma ab laax ma toggal ko laax ba mu jëfandu ko ba nopi ne ma soxna si and lan nga gëna bëgg manako dama ragal ba ragal bàmmeel lool ragal ñaari malaika ci nek mu ne ma xana bis bo faato ma sangal la sangal la sama bop duugal la ci biir mel xana su boba ni nga ko ñemee mu waaw mu ne ko borom Touba moma waxon li te man oppuguma bay faatu kérok la sëñ Touba doon bind nga xamne ne naarun muta ajij al yun ji biha ila munajjarul lahi fi nar sawar way tang di mërmëri ana kan moo ca mësa mën a musal nit xanaa yàlla ma musaloon Seydina Ibrahim ca sawara wa keroog la sëñ Tuba doon min najawtu bi xifdillahi min satwatil ida wali raadahum turran wali karramal janba achani al xanaanu min kaydi man xala wa saaraka naalul xelli li bahru ma yomba waaye xoolal keroog bi borom daaru muuti di jéegaal ga it dafa fekk mbind mu tooy xib sëñ Tuba ñetti nit la ca tudd ne ko cerno neel diw ak diw ak diw duma seen morom nañ ma neel diw ak diw ak diw ndax booba loolu daa am ay xew xew comme que camara mënu tiim ñooñu ñett ñooñu daa am lu xewoon ñett ñooñu daa am moo tax sëñ sëñ sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa na sëñ Xaadim ñett ñii li ma daj ci ñoom ñett ñii li ma daj ci ñoom ku ma ko nar a dajati ci ñoom bàyyi la ak sa borom mu lakk leen daan ne buur sin ku mëndoo fen laa ci mën a tudd ay ñeneen ñaari ñi boko ko xaman yu bari dañuy bay lañ nek ndax jom lañ amul nak xam nga sëñ Touba xam nga sëñ Touba xam nga li tax ñak jom gi moy sëñ xaadim sëñ Touba bimu ñewé aduna ñepp la nangul sëñ xaadim sëñ Touba moy képp jom ñépp la nanguwul moom sëñ Tuubaa tàmbale ko ca Seydina Adama ak Xawaa yonante yëpp sëñ Tuubaa nangu leen mbokk mi doon na ko wax léegi tagg alayhi salaatu wasalaam bay tagg saxaaba yi taabiyaane xutbu zamaneek boroom jamono yëpp sëñ Tuubaa nangul leen xataa ataa bi kitaabin ajazal bulaga wa kalla an mislihi ahlul fasaxaati ahlul fasaqati turran bishana madkhu walaysa sa yudriku bil akwa bi tayyaru ñepp seigne touba nangul len bu fekke ne tari sufi seigne touba nangul len bamuy wax mashayiqi sayyidina jilani jailani wa mahwuti jani tijani lu yag bo demé ci ilhamu salam ding fa fek li mala wax kon seigne touba ñepp la nangul nangu nangul ñepp yit motax bam démé ba egg ci kik mu man ñepp sëñ Touba boo ko nangulee moo man boo ko nangul moo man boo bëggee sëñ Touba moo gën boo ko bañee moo gën sëñ Touba boo ko nangoo moo jiitu soo ko bañee moo jiitu sëñ Touba nee na mbooleem wàllu yàlla yépp bu ñu fexee jëm ci suñu borom ka ca gën a gaaw bu dikkee daf may fekk ma boofu ca kanam sama borom subhanahu wa taala xoolal léegi mbokk bi li mu doon wax nga xam ne magi sëñ Touba yi rek doyoon nañ misaal. léegi bi muy wax ne léeg-léeg nga dégg menn mag wax bind loo xam ne na naan waa kii ndax da doon bakkanam fekk déedéet sëñ Abdou Karim Touré dafa wax ne fa qul li say xeka fal yaluuz bi say qiyasa qabla laza maa saxirin daara zaljaati nee na yow mi dendale sab sëriñ ak sab sëriñ demal wax sab sëriñ mu ñëw jébbalu balaa ëllëg yow mal xiyaam sare taxaw am tiyaas bi day metti day xat doo mën a jébbalu xoolal Cheikh Ibrahima Diop almashanri yi nga xam ne fi mu toll ci diggam ak boromam bi muy jëbru ci Sëñ Tuubaa ab xaadir la woon waa nekkoon seexub xaadir jiite woon mbooloo nekkoon ab commerçant bu tabe nga xam ne lim daan jaay daf koy jël di ko maye ba dem ba amatul nit ñi ñëw ci moom di ko laaj muy leb di maye. dem ba am borub juróomi temer amul lum fayé fayee bor bi mu tok at amul lum ko fayé mu tok ci birum negam bind ab leetaar bobu jébbaloo gut daal ne sama juróomi temer yi na ma rasulullah fayal ben bi ben bi bakkar Siddiq ben bi Omar ben bi usman ben bi Ali bobu seigne touba mi ci geej mu dem ba ci garabu xel mu gas ko ba jot ren bi xar ren bi kep ci leetar bi dal di koy sul jóg dem bi seigne touba ñibise 11 novembre 1902 dem dar dem mas sanusi Cheikh ibu al masari nek masar masar, ñu ne sëñ Tuubaa mi ngi sànnosi mu daal naa dem xoole sëñ Tuubaa moom ñuy wax bi mu duggee ci dëkk bi sëñ Tuubaa yebal ay ndaw ne leen gàttandu leen ma ku ñu wax Ibra Diop ñu gàttandu ko naan leen yaay Diop mu leen man de Ibra Diop laa tudd dëkk Massar sëñ Tuubaa ma wax ñu jël ne bindu te tagguwuma ko te da dem nuyu sëñ tuba sëñ tuba joxoñ ko ñetti koll daal ne ko tekki ko te xol ci nek mu tekki ko mu nekk mu tekki ko mu nekk juróom benn dërëm juróom benn dërëm sëñ tubaa ne ko beral benn bi mu ber ko sëñ tubaa ne ko benn bi rasulullahi moo la ko jox benn bi aboubacar siddiq benn bi omar benn bi Ousmane benn bi Ali daan ne ko téeméer bii nga ber maa la ko jox ngir yónni bi ma rasulullahi yónni askina mu génn daan laa tatlubanna min siwaahu fadlu sa taabin fal fadlu min xayrihi qad kaana masluba bu kenn demati fenn di sàkku ji ngeen ndax fu ngeen ma sa nekk su mborom rocc na ko jox ko Bamba xoolal wax sayqun bihi qad unina kullu makramatin xatta bihi xabitatna ahlu bagdada wa ahlu misra wa man fil ardi kullihimoo na ak waaye tey ñoom ñëpp ñoo bëri ñee ngir am gi nu am Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nee na boo toogee ci kaw suuf naan sëñ tubaa kenn la nee na yow yëgal ne suuf si day kennal sëñ tubaa nee na garab yi dañuy kennal sëñ tubaa nee na ngelaw loo ëpp lan lay wax laa bi sarqa bal laa bi xarba taraahu fam daaxu man an bahiya nee na ngelaw lu jógee penku dala naan ba mu jógee penku ba koste saw upp ma fi ku mel ne ahmadou bamba ngelaw lu jógee saw ne la ba ma jógee saw ba koste penku upp ma fi ku mel ne ahmadou bamba mu ne wala ka jaaju rabal arsi fil xalqi nuruhu bihi yarxamu naasu man kaana rahima sëñ tubaa mooy yërmande yàlla ci kaw suuf ku yàlla nar yërm ci kaw la koy jaaree kon kon sëñ Touba te nee na boo demee ci pays yàlla yi gën a kawe kañuy puukaroo woon lii ñuy tudde béggee xam nga xale yu góor yi dañuy wax béggee léeg-léeg nga dégg ko ne man diw lay béggee nga xam ne am na ñoo xam ne murum làmb la ñuy béggee am ñoo xam ne musicien la ñuy béggee am ñoo xam ne sax jigéen la ñuy béggee ab xale bu jigéen moom lay béggee Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari yi nee na boo demee ci pays yàlla yi gën a kawe kan ñuy bëgg mooy Ahmadou Bamba sharifun zahirun fi zamawat zikruhu wa fi mala'il ahla waqad kana waaye xoolal li tax ma ne la sëñ Tuubaa kenn la léegi doy na ci misaal léegi jëlal ñaar ñii su ma ne la sëñ Tuubaa kenn la jëlal Cheikh Massamba Mbakke jëlal Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine xoolal Cheikh Massamba mi nga xam ne dafa complet ci sëñ Tuubaa sëriñ Mahmadan Mbakke daana wax ne sëñ Tuubaa day ma Massamba day bu la neexee nga ne rakk la ci sëñ Tuubaa bu la neexee nga ne sëñ Tuubaa doomam la bu la neexee nga ne ab taalibeem la nee na sëñ ma sëñ Mahmadan nee na Cheikh Massamba de bu la neexee nga ne doom la ci sëñ Touba sëñ Touba di bàyyam ba noppi def ko doom mu mat doom sëkk sëñ Touba daal na sëñ Mahmadan daal na ma Massamba moom day bu la neexee nga ne ab taalibe la ci sëñ Touba sëñ Touba rëbb sëriñ ñam ba noppi jàppee ko ab taalibe mu mat sëkk ab taalibe sëriñ Touba bu la neexee it nga ne Cheikh Massamba day rakk la ci sëriñ sëñ tubaa di magam mën na def ko rek mu mat rek sëkk sëñ tubaa waaye te xoolal kii ma la wax bu ma ne laa sëñ Mahamadan moo wax loolu doy ci misaal xoolal keroog bi mu ab kaamil nga xam ne sëñ tubaa joxe aw turam moom sëñ Mahamadan sëñ tubaa moo wax ne nañ ko tudde Muhammadul Mahmoud sëñ tubaa moo ko joxe aw turam Seex Masamba daal di jëfee ndigal loolu sëñ tubaa moo ko dalal jàng alquran bind sa nuquri ko fala tanza alhamdulillahi rabbil alamin ila axirul aya daal di koy jox Cheikh ma sëñ Mahmadan digal sëriñ ma sàmba ne ko nañ ko yóbbu ca nijaayam sëñ sàmba ayib Diop nañ moom ñu jàngal ko waaye xoolal ñetti at jàpp ñeenti at la sëriñ Mahmadan def ci kër gi mokkal alquran xifsan wa tilawatan man koo jàng man koo tari man koo bind te di ko gis ñetti at jàpp ñeent keroog bi sëriñam ànd moom bind kaamil bi muy njëlbeenu kaamilam ñu ñëw won ko sëñ Samba Ayib Samba Ayib moo ànd ak moom ba ci Seex ma Masamba mu jëbal ko kaamil bi Seex Masamba daal di yéemu ci loolu waaye xool bi mu ci yéemu la la wax nan dem ca sëriñ Touba nga xam ne Samba Ayib Diop ak sëriñ Mahmadan ak Seex Masamba ñoo ànd ba ci sëriñ Touba ci njëriñ sëriñ Touba daal di koy tijji kaamil bi mu yem ci njëlbeenug laaraaf alif lam mim saat te la yem sëriñ Touba ko tari mu tari di tari di tari tari sëriñ Touba ko taxawal. Dari wah wax cheikh ma sàmba ne ko ma sàmba mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ngor si mo bind li nga xamne non la ko waxe ndax ngor si mo bind li mu ne ko wa mu ne ko nan ko sutural ndax li lu tel la ci mom seigne Mahmadan nan ko sutural ndax li lu tel la ci mom mu tari alquran mu nopi seigne touba ne ko Mahmadan mu ne ko mbacke mu ne ko na nga yek tay ne wacc nga ci dess mahmadan mu ne ko mbakke mu ne ko nanga nga yëg tey jii ne boo ko yëgee ak boo ko yëgul may sa bàyyi mahmadan ku def ni yow di sama doom ku deful ni yow siquñu dara moo tax sëriñ mahmadan daana wax ne bu ma kenn campagnal sëñ mahmadan daana wax ne bu ma kenn campagnal ndax sëriñ Tuubaa mi yilif ñëpp moo ne ma mahmadan ni nga seddu kon sëñ Tuubaa kenn la waa dama ne léegi damaa wax sëñ Malick ne ko nit kilifa bala ngaa doon kilifa dangay ngay mën a boole ndox mu tàng jër bay lakke ak ndox mu sedd guyu ba boo ci dugalee sa loxo wi cax ko ndax ab sedd nga jaxase leen te ndox mu tàng mi du seral mu sedd mi ndox mu sedd mi du tàng du seral mu tàng mi loolu noo koy déggee dangay ngay jël Seex Masamba nga xam ne du faat waxtu du tiim du juy ak boroomam sax ci liggéeyal Serigne Touba guddi ak bëccëg nga xamante ni amul waxto yalla muy fat nga jël ko mom muy ndox mu tangi jër ba bo ci duggalé sa loxo mu lakk la nga jël Cheikh Ibrahima Fall Baba mourid mi nga xamné du julli du wor natul asaka ajur makka té koko ko di nga dem sa wara sëñ jéeri waadaan sugu nee kérok keroog bi ma jógee waadaan jëm Ahmadou Bamba diko ko ji nee na keroog yàlla moo xaatabante ak man ne ma ahmadou waadaan yaa nga noonu jëm njaaram ca xaadim rasul di ko siyaara ji waaye na nga xam ne am na taalibe bu ñu wax ibrahima faal du julli du woor nattul asaka ajur makka waaye ku linkaar ñàkk julli ga ak ñàkk woor ga ba wanaa soloor wa amut waliyu la tee dem sawara amut waliyu la tee dem sawara qad a cheikh xidaman qaadiman fatina yab xiiri dahuwa anhu yaxmalul kulafa bu yàgg la jaayante ak sëriñ Tuubaa moom Seex Ibra Kedamaan di ko liggéeyal xaadiman di ko liggéeyal nan fatinan nekk xelu cheikh ibrahima fall lu masa dis mu yenuko bu ko seigne touba masa yoni xamewul fi moy buntu néeg bi ak fi di buntu bi seigne touba mas naa ko wax ne ko ibra fall jot li massa talagi mu dugg ci bir gisul satala nga xamne day daw di mbeuk fi daw mbeuk fi daw mbeuk fi bu ko seigne touba ne Ibrahim fall ana li ma la laajoon gisut mu ne ko koy beug gis du wax seigne touba mukk sëñ Tuubaa nee na Abdul Karim mu ne ko Mbakke mu ne ko Ibrahima Fall dama ko teg fii sànne ko foofu jaamu yàlla yóbbu fa ab jàmm daan ko Ibrahima Fall day fa ma ko yóbbu su fa jóge woon di wàcce suuf junne at dulaal suuf daan na Abdul Karim sëñ Abdul Karim dikk fekk sëñ Tuubaa beru ci am néeg naan tey man Ibrahima Fall tey man ak Ibrahima Fall tey man Ibrahima sëñ Abdul Karim daan ne dañoo bëggoon nga wax nu Ibrahima Fall mii la la defal ba nga teg ko fii ñu defal la ko Sëñ Tuubaa ne ko sallaaw defaluma loo leen ma defalut waaye damaa teg fa ma yàlla teg damaa yàlla teg moo tax sëñ Mbàkke Faajama ñang daa dikk ci soxna may mun a kubraa soxna may ne ko man de ci sëñ Tuubaa laa jóge léegi waaye sëriñ tubaa moo ma wax ne ma sawara day léegi la fi jóge di jooy sawara léegi la fi jóge di jooy ndax sawara day daa ñëw fii ne ma yow Ahmadou Bamba daa am lu yàlla waxoon yàlla wax ne la am la na jahannama minal jinnati wa naasi ajmain danaa duy sawara ay nit ak jinne ba mu fees dell waaye yow Ahmadou Bamba xam naa ne nekk gii nga fi nekk tax na ba loolu du am ndax ku la bëgg mucc ku la siyaare mucc ku la liggéeyal mucc ku la gis mucc ku liggéeyal ku la liggéeyal mucc ku siyaare ku la siyaare mucc kula bëgg mucc kula la siyaare mucc kula bëgg mucc kula la liggéeyal mucc ku bëgg kula bëgg mucc ku liggéeyal kula la liggéeyal mucc ku gis kula gis mucc daan ne ko loolu moo tax doom daan ne wërëñ di jooy sëñ tuba ne ko kaay mu ñëw mu ne ko ni nga fees dell ci ko wax Ibrahima Fall nu dul noonu ak waa këram ci ko wax Ibrahima Fall nu dul noonu ak waa këram te xoolal Seex Ibrahima Fall sikrun ilahi la sax doo liggéey joxe ko ci lii la jaar ba ñu xëy ba dil ko Seex Ibra Fall amaana waa ju ko jeex ci téere mbaa jamono allahu akbar yàlla noppi na Seex Ibra Fall ëllëg la ñuy xam mbiram buur yàlla moo xarare wallahu yafaalu ma yasa u Seex Ibra Fall bas ma la laam nga ca kaw tiim bàgga kenn xamu ko baagaa di Seex Bàmba laam nga lamb ci Ibra Fall moo tax sëñ Tuubaa boroom muuñ mu neex mi te kàddoom nga neex te kaalaam nga jot lool de moom laa di woyi boroom kaala googe moo waral kaala yi ku tal kaala wooti na koy sant tey boroom dalli karbat ya moo tax ba nuy maraakiisu tey jii di sant ak di woy boroom fitwa ak ngor ja ak jom ja cëy borom jom ja jommal na ñii ak ñi woy karaamaaki xarbaax ak wilaayaak yi booti xol ku leen masa am sëlboo ku dul yow sëriñ Touba ku dul yow dadaa sëlboo ko dëkkoo ko rek ki ngëm di alkee ka yàqante ka fa décoré Touba nga yor yital lamboo rahmatallahi yàlla wet li ngay muñ man koo faj amum kem sëriñ Touba ku lay sóoru daf laa réere boo gestu woon mu dee ndamul uub nga lambi soodaan ak bayaa dini ak Touba gouverneur yi ak soldaar sax xam nan la baafal yi commandant yi ak kàngam ya xam nan la bis Touba Kajoor ak Bawal Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof ci say may la ñuy baawaane yaay géej gu wër Tuuba ku lay tëkkaleeku xaws moo réere ay mbiram ne moo tëdd bu xut boo xaws seen leer wër Tuuba ku daan woote tey kuy kuylu taalam ba fay na tey sa taal baa ngi dollee jolli faytil ba dem Tuuba ngirum tër bi yaa ngi xew ci sow jant yaa ko def pajub aajo yaa tax nit ku ñuul mos ko fi Tuuba ku ciy bañ a ànd ak Bamba xam naa da koo xamul ndax gumba gisut leerub jant yéem naa sëriñ Tuuba kamaalug rasulu wat leen ay mbootam te wat leen ay nato